yàlla na delloo jullit ñi. yàlla delloo jullit ñi. ñu xaw ci yoonu alxuraan ak sunna. ci yoonu alxuraan ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. te yi ñuy faraatu di ko jëlee ci noonu diine yi. te bàyyi di ko jëlee ci noonu diine yi. loolu rek leen delloo gannaaw. loolu rek moo leen delloo gannaaw. dara mënu leen a jëme kanam lu may alxuraan rek. a rek. mboolem ñi méngoo mbiri jullit yi mboolem ñi méngoo mbiri ñi yal na leen yàlla xawloo ci yoonu njub yal na leen yàlla xawloo ci yoonu njub ñu jàpp ci téere yàlla beeg sunna si yonent bi kon teraanga ji dana dellu mel na meloon kon teraanga bi dana dellu mel na meloon te lislaam te lislaam su amee doole boo amee doole doomu adama yëpp na ci jàmm doomu adama yëpp na ci jàmm ndax moom diine jàmm la پیچی برای همین